bismillahi irrahmani irrahim subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala habibina wa tabibina wa shafiina abilqasim mustafa muhammad wa ala ahli baytihi tayyibin at-tahirin wa ashaabihi al-axyaar al-muttaqiin wa ala jamii al-anbiyaai wal mursaliin mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare fii ci Daara Koki TV di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ muy kilifa gi jiite daara ñu Alhaji Maxtaar Naar Lo ñu ko jàppale ci daara ñëpp ñu ngi ñaanal yàlla ci bis bi e, yàlla yokk leer yokk yërmande sunu sëriñ bi wax Alhaji Ahmad Saxir Lo di leen ndokkeel ci weeru koor bi nga xamante ne dañ nekk muy weer bi nga xamante ne mooy weer wi gën ci yi weer wi gën a tedd ca yàlla ndax weer la woo xamante ne bi nii eh, layaalihi afdalu layaali wa ayaamuhu afdalu ayaam wa shuhur wa saaatu afdalu saaat weer leer la woo xamante ne bi nii ay bisam moo gën ci bis yi ay guddeem moo gën ci guddi yi ay waxtoom moo gën ci waxto yi eh, ñu bëgg a ñëw nag jàngat la benn aaya bu yàlla wax ci alquran karim yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum asiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ayaaman maadudaat Euh, ñu bëgg a jàngat yéen seen émission bi nafaxat ramadaaniya aaya boobu borom bi subhaanahu wa taala dafay bi mu bindee doomu aadama doomu aadama defal ko lu mu deful benn mbindaafam ndax moom yàlla ci mbaaxam ci ci ci ngëneelam defal na nit juróom defal na ko làmmañ mi wax defal na ko xel mi xalaat defal na ko loxo buy jëf defal na ko jëmm ji taxaw dégg nga ba noppi jox ko lu ñuy wax liberté de choix maanaam tànn lu ko neex lu ko neex moom doomu aadama bi loolu amee nag doomu aadama yi dañoo xaajale ko ñaar am ñu tànn yàlla def ko muy seen kilifa fas yéene dund yàlla dund ko wéetal ko jaamu ko selal ko ngir moom ñooñ yàlla mooy seen kilifa daalika bi anna allaha mawla am ñu tànn leneen tànn seen bakkan wala tànn adduna am naa leneen ñu tànnuñ yàlla ñooñu amuñu kilifa ñii yàlla tànn nag ñi nga xam tànn yàlla muy ñu gëm yàlla yàlla nee na wane leen ci alquran juróom-ñeent fukki yoon ah, nidaatu rahman di ahlil iman takarara fi alquran karim tisiina marra juróom-ñeent fukki yoon di wax ak ñoom di leen orienté di leen digal di leen tere ngir rek bëgg ëllëg si bu ñu egg seen egg nekk egg bu rafet ñi nga xamante ne ñoom ñoo wedd yalla ñoom benn yoon leen yàlla woo benn yoon yaa ayyuhal lazina kafaru benn yoon ñëw ci alxuraan mu sóoru tahrim buñ demee ba gis sawara mi bëx-bëxi lii nag moom ngànt amul ndax lii seen góobitu jëf la jëfi doomu aadama ju ban moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy xam sawara aay bi borom bi subhaanahu wa taala di wax yàlla doomu aadama dafa am ñaari doxin daa am sayrun sayrun badani sayru tabi'i sayru suluki maanaam nit ki buy dox bëgg a jóg fële dem fële pour mu dox dox bu yem dox bu yemoo borom bi subhaanahu wa taala dafa ndimbal makkanahu fi sayrihi ndax dafa nuuxal ndëgg tànkam nuux nuux boobu nekk nëgg tànk moo tax mën a dox doxin bu kii beneen sayr mooy sayru suluki yi yaa ngi kenn ku ne yaa ngi dox jëm ci yàlla kenn ku nekk yaa ngi dox innaka kaadihun laa def innaka kaadihun laa def kaddaxan fa mulaaqiihi ñëpp ñu ngi dox jëm ci yàlla waaye eggin ba nag mooy woote mooy wute am ñoo xam dañuy egg raadiyan mardiya am ñoo xam dañuy egg yàlla ci yàlla musal egg ak jëpp yàlla subhaanahu wa taala pour na nga mën a egg raadiyan mardiyan am ngërëmal yàlla yàlla dafa defal doomu aadama ay ay orientation te mooy ay yoon am ñu nekk alxuraan ka benn muy digle benn mu koy tere benn mu koy kii yoon aaya bii nag ñu wax suuratul baqara yàlla wax ne kutiba alaykum siyaamu euh, yàlla moo farataal ci jullit yi ñi ko gëm moo ko tànn def ko kilifa parce que ne ko wéetal parce que ne ko jaamu mu ne farataal ci yéen woor daa am na xam naa nag li ñuy wax ci bu mag li ñuy wax docteur Ali euh, Mansour al Kayali day wax différence bi am diggante as sawmu ak as siyaam ndax kullu ixtilaafin fil mabna ixtilaafun fil maana as sawmu mooy al imsaak maanaam euh, nga tere woo lekk tere woo naan tere woo def leneen lu yàqu koor ba suba ba jant bi so mais as siyaam moom programme la kutiba alaykum as siyaam ñooñu nekk ci programme boobu nag mais programme koor nga xamante ni seen lépp day nekk ci yàlla subhanahu wa taala du ñu lekk du ñu naan du ñu def leen du ñu dem ci loolu waaye seen lépp dañ ko dund yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñooñu yéen ñooñu def loolu nawmukum fiihi euh, ibada nelaw yi ngeen nelaw ci biir koor gi sax yàlla la wa anfasukum fiihi tasbih wa amalukum fiihi maqbul wa duaakum fiihi mustajab nelaw yi ngeen nelaw jaam yàlla la dañ di bindal tuyaabay ko jaam yàlla nokk goo ci nokke da nga am tuyaaba ku sàbbaal yàlla jëf jooju jëf yàlla daf koy nangu ñaan goo ñaan yàlla nangu ko moo tax mu ni sallallahu alayhi wa sallam ci hadisam ba rabbakum bi niyaatin saadiq wal qalbin leen yàlla ci xol yu set xol yu laab mu dëppee leen ngeen mën koo woor woor goo xamante ne bi nii ak jàng téene bi na ko yàlla bëggee koor li tax borom subhanahu wa taala farataal ko ci doom ci jullit yi mën nañ jàpp ñaari mbir doomu aadama en tant que doomu aadama dafa am ñeenti mbir yu kay gaar yu yàlla moo ñaanee ak moom te ñeenti mbir yooyu mën naa gàllankoor doxinam jëm ci yàlla pour bu egg am egg ànd ak gërëm doxin bi yàlla gërëm am na am nañu quwa al shahwaniya al quwa al ghadabiya al quwa al shaytaani ak al quwa al anaya shawbaatun min min arbaati quwan yoo xamante ne bi nii yu jëral kii quwa al shahwaniya mooy am na lu nekk ci nit di ko yëngal mu jëm ci bànneex am na nu muy màmmoo day mel ni rab wulaay kal anaam balahum adall te mooy mooy fuqale mooy mooy tàggaloo sa sago ngir mooy mooy pour satisfaire les les besoins terrestres lekk naan sëy yu demee noonu dégg nga am na benn xaw bu ñuy wax al quwwa al nit day mer am na nu muy mere bu fekkee na mi ni àndul ak niteem rek day mel ni day mel ni rab yu fàdd di lekk yaa nga dégg rab yu fàdd di lekk du am yërmande kon soxla na du téye quwwa ghadabi ba ba lu mer mer tamit ànd ak sa sagone dégg yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na ci benn hadis jàmbaar kenn di ko xamee ci làmb mais ñu nga xamee ci kum boo meree ni dégg ba doo doo doo wax loo rëccu doo def looy rëccu mais ànd ak sago am na quwa seytaane boo xamante dafay gaar doomu aadama mu mel ni seytaane mooy gën a yées seytaane ci yàq ci ci ci ci yàq ci ci ci ci ci ay pexe yu bon ci mabbu ci def lépp loo xam ne que shayatin insi wal jin yuuxi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura wa inna shayatin la yaxuuna ila awliyaam li yujaadilukum loolu xiba euh, euh, waswasa seytaane yooyu dafay gaar ni léeg-léeg am quwa al ananiya quwa ananiya mooy doo gis lu sa bopp illa ma ara firawna ma ko waxoon su bopp rek la ñor su bopp doo ki gis bopp doo ngay kii loolu dina yóbbu ci ci al isti'la at takabbur at ta'allu kawa kaweelu réy réylu dégg nga ba def yàlla sax sa bopp ana rabbukumul a'la Firawna ma koon wax dem ba tiim nit ñi ne maay seen borom bi gën a kawe dex gi ma maa koy doxal ñeenti xibaar yooyu nag doomu aadama dafa am soxla dafa am aajo boo xam ne dafa soxla lu ko lu ko dabtu loo xamante ni moom moo koy téye ba du ba du gaañ doomu aadama di ko détruire comme ni mu soxlaa oxygène wala ndox wala ndox mu muy naan daa bokk nag ci li koy dimbali ci loolu koor weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla moo leen woo du'itum fiihi li karamatillah yàlla moo leen woo pour tere leen yàlla moo leen woo pour màggal leen tiraange sunu borom da bokk na ci al juu fi sabilillah tira euh, kii tiraange la benn benn nit yàlla baax dañu nettali leen dafa mosoon am ay mbooloo yu ànd ci benn jàkk euh, benn benn dëkk bañ demee ba julli gee ba noppi na kenn ku nekk am nga fa benn xarit ci dëkk bi kenn ko dem dem dem fanaane fa waaye am kenn ñoom ko xamul fi kenn bi ñëpp demee moom amul fu mu jëm mu daa ne kon naa fanaan ci jàkka ji euh, léegi dundul jug jàkka ji ngi dundal dundal guddi gi jaamu yàlla commencé di jàng alxuraan ñaari si mu jàng jug naafi la ko di ko jàng ba ba trois heures du matin mu xaw a gëmeen tëdd nelaw fi mu tëdd na la gën gis sang bi mu ne ko yàlla nee na yàlla nee na nangu na nangu na nangu na ngan gi ganale na la joxoon na ndigal malaykatu rahmaan ñu war àjjana xool teraanga ji gën a neex ñu andi ko pour nga reere ko waaye gis ñu lu gën a tedd al ju'u fi sabilillah kon al ju'u fi sabilillah yi tamit daa bokk ci liy yar bakkan doomu aadama boo demee ci tër ñu xoqal bukkaa maam Sëriñ Tuubaa day wax ni arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatun bihaa yu assu bunyaanul wilayaat sumtun wa ju'un tawiyun ba'dahu saharun wa zuhan shi'un bil ishaaraati nee na eh, ñeenti kanoo yi yëkkati néegu yàlla yi yëkkati wilaaya wilaaya yi koy yëkkati ñeent la mooy sumtu noppi noppi tamit waxee na noppi nekkul rek lu ñuy wax l' absence de son loolu waaye noppi programme la bi maanaam làmmañ dafa dafay dafay dafay dafay paaka ñaari bor man nga caa wax alku am na ñu wax alku da nga yahudi bañ ne yadullahi maxuula xullat aydihim wa lu'inu bi maa qaalu wa bi maa amilu gis nga fa gis nga benn kàddu moo leen alak da bon ñoom seen seen xol yi bon seen xol yu ñagase seen jëf ji bon ja rajo moo tax seen xol ya wow yàlla nangul seen ñaan ñun ñaan yàlla yàlla nanguwul ñu ne ndox bi yàlla bi dañ ko dañ ko jéng maazallah ki naa yaanal buxli yàlla nee na ñu rëbbeef leen ci kàddu googu ñu wax gis nga foofu ko làmmañ tamit eh, am na ñu muy éliminé am ñee meen mbooloo mu dégg ñu ni am na ko woote ci eh, ci jazira arabi ci eh, di woote diine ñu ñëw seet ko mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñëwee Madina Munawara gis tàndarma yëpp yonente bi ci jàkka ji ñu toog ñu ne ko dañoo jàngoon suñ suñu suñu tawraat ñu ni injil injil Barnabas ñu ni kii tëj yëf yi mujjantal yoonante bi dina ñëw ci mujj jamono tegtal yi yëpp na gis nañ ko feeñ na jamono même millier bi gis nañ tegtal bi léegi liy des nag mooy mooy li nga yor nga jàng ko ñu dégg yoonante bi jàng alxuraan karim ñu rabbana amanna faktubna ma shahid yàlla na gëm nañu kii li mu wax seedal bis ni ki tey ab jurit lañu ba alxuraan toon ne dafa asaabahumullah bi maa qaalu dégg nga ni fu jëlee benn kàddu alku ñi benn alku benn kàddu ci àjjana léegi nag bi ñu nee sumtum lu ñu bëgg ci weeru koor mooy sa làmmañ bi bu yëngatu rek la yëngatu ci lu soobee yàlla yëngatu ci sàbbaal sunu borom yëngatu jàng alxuraan karim bépp kàdd bu yàlla bu bu bu bu kii rek ñu nekk kàddu goo xam kàddu kàddu gu kàddu gu yàlla gërëm la su wa juwoon tawilun fa laa bëggoon a ñëw mooy xiif bu yàgg xiif bu yàgg bokk na ci li gën a mën a tarbiya dam aadama boo gisee ci ñi def ci wàllu tarbiya dimbali nit tarbiya la arbaine yi bokk na ca da ngay limité li ngay lekk dégg nga yokk say jaamu yàlla yokk say nawaafil yokk say xiyaamul yokk say alxuraanu karim ngir ngir tàggat sa ruux mu nekk ruux gu am am doole gu am kattan ba li nga xamante ne bii danga mën a bëgg ko bii des tamit fa la ñuy tëjee mooy taaqaat dafa am ñoo taaqa rabbaaniya énergie divine dafa am énergie yoo xamante ne bi nii nit dafa ko soxla comme bu dee énergie physique lekk ak naan yooyu moo la ko jox bu dee énergie wàllu xam-xam liir ak jàng waaye ruux daa soxla énergie daa am énergie euh, quotidienne comme julli juróomi énergie hebdomadaire comme julli juma énergie annuelle ci weeru koor lañ ko amee muy gudd la weeru xadri don na moo tax tanazzalul malaayikatu war ruuxu fiihaa ruuxu googu am na ñu ko firee ta taaqa rabbaaniya comme ni énergie seytaane di dem di dem sayaatin tanazzalu alaa kulli affaakin athiim dégg nga ko tami da leen di wàcc seytaane mu wàcc ñoom ci ay gaayam di leen jox énergie yu bon yooyu kon tamit weeru koon kon weeru weeru weeru dellu weeru dellu ci yàlla la weeru du fóotuwaat la weeru weeru safar sàpp yëf yi la weeru euh, làbbaliwaat sunu doxin jëm ci yàlla ngir am ngërëmam subhanahu wa taala ñu ngi ci ziyaare ñëpp xam naa bii di ñëw incha allah dañu waxtaan ak yéen ci tuub ci yoonu yàlla ndax weeru tuub la wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa taala walhamdulillahi rabbil a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service du